Mm-hmm. culture la. gannaaw kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko uh, moom uh, ki nga xam ne rek mooy. Uh, Cheikh Tidiane Ndao teg ko ci ndoddu Ousmane Sonko. Mm-hmm. tey nag ñu nemmeeku ay kàddu yu njéggal daal di jóge ci moom daal di jëm ci ki nga xamante ne rek mooy Ousmane Sonko loolu nekkit à la une des journaux mu mel ni rek nekki tey ñëpp ngi addu di jëm ci lu ni mel tonton Mawo ku tooñ sañ jéggalu Imam Ndao daal dina jéggalu ah tey def na diine. def na diine wax na diine mhm. jëf na diine mhm. ndax nag boo boo tooñee mhm. xam ne da nga tooñ nga jégglu humainement li mu def lu war a def te maa ngi ko ci encouragé di ko félicité jéggalu sax du ñëpp a ko mën dama di goro ko man gis nga nit bu rëyee waaye nag jébbalu ñaaraam nga am jéggalu boo xam ne da ngay tiit ragal nga jéggalu am na koy def yàlla rek tax te yaakaar naa ne bi mu def moom da koo def te yàlla tax ndax tiitul man naa am mais dama koy man comme je suis un homme positif. dama yaakaar da ko def te yàlla tax. ne xam na ne tooñ na. tooñ na jullit. tooñ na ay mbokkam. tooñ na un croyant tooñ na kilifa. lu koy bëgg ak ñu ko bañ ko Ousmane toll tollu Ousmane Sonko fi ñu toll tollu la man. ndax dañ ko def ministre premier ministre. par décret defuñu ko. kon am na lu ma ko war a wegee buy dem de ànd ak ay ay buy buy këyit bu mu signé sama tur ko signé. suy nommé nit sama kër sama tur ko proposition de nomination. ci sama tur la koy def. dëgg ñu maa moom doole. kon dañ ko war a wekk respecté ko. dem nag bay dugg ci loo xam ne man gënuma fa. ci ndey ak baay ak juddu. bokk ci man maay sama famille. man lañ yaakaar. famille moom lañ yaakaar. suñ ma offensé. sama famille du ko neex. buñ ko offensé même famille du ko neex. lii mu def nag maa ko ci encouragé. waaye ànd naa ceeg moom bu baax di ko encouragé aussi. mais nag. dafa mais nañu imam la. te imam bokkul ak man maaw Ablaye maaw mii. bokkul ak kooku beneen tur boobu. ki doon saaga. ak wax lu ko waxul bay jiyaate leen nii. bokkul ak ñooñu imam dafa am fu ñu koy teg. enseignant daa am fu ñu koy teg. militaire dafa am foo xam ni tey bu soldat bi defee dara. Mhm. kilifa gi def dara. bu ñu ñëwee kilifa la ñuy sanctionné même bu ñu tolloo. arme euh, loi sénégalaise réglé ko. tey suñu àndoon maa def def un crime exemple. bu ñu ñëwee dañ ñuy laaj. est-ce que vous savez faire l'armée. nga ni non non ñun mooy est-ce que vous ma ne j'ai fait l'armée. soo amee fukki wee at. fukki at a juróom laay am. ndax dañ ma waruma. parce dañ ma jàngal. violence légitime. yow jàngaluñu la ko. ko boo ko defee da ko def par erreur rek. mais man dama ko xam dama ko def maa ko war a def. te waruma ko def. moo tax boo xoolee nag nit ñi. ku nekk nga toll. fa ngay defee. Mhm. mais def bàyyi. Mhm. téye ba mu diis nga xam ne lii nga def du yoon nga bàyyi ñëpp dal sa ko nga bàyyi. Mhm. ñaar rek moo ko joxe. gëm ni yàlla rek a fi nekk. du keneen tooñ naa baalu naa bi ñu des. nga nga ñàkk jom nga baal ma joxe nga ragal. daw des rek te yaakaar naa man bee laa koy jox. comme wax nañu ne soi-disant imaam la mhm. li mu def moom yëfu imaam la. Mhm. tooñ naa la mhm. ñu gis euh, li nga xam ne rek mooy kàddu yu njéggal euh, euh, ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko polémique bi bëri loolu ñii naan dafa rek ragal moo tax mu demandé pardon ñii naan dafa rek toog ba yedd boppam moo tax mu daal di demandé pardon ban anam nga ko gisee dayasu imam imam lañ ko mën a wooy parce que loolu lañ ko xamee te moom mooy fonction mais dafa am loo xamante ne imaam yi dañ ko doon jàngale mm. ñu naan ne isa jaakum fasiqun fatabayyanu loolu dañ ko doon wax bu leen information dikkalee mm-hmm. na ko saytu ba xam lan la ba pare mm-hmm. laataa ngeen cay wax di ci àddu mm-hmm. et pense kuy faral di déglu ay waaraate wala ngay dem di eh, juma loolu mbokk imaam yi dañ koy fàttali ñi nga xamante ñoom ñooy journaliste yi si si si i sac sac sortie bu ñu def mu leen ne ab julit dafa war a moytu li nga xamante ne dafa dégg rek ne lii moo xew loolu nag bu la dikkalee en nga koy jàngale mhm. yow yaa ko war a njëkk a mhm. xëy na moom bi bi mu déggee affaire bi mu mhm. déggee ko ci ba jaxate mi nga xamante ne tey jii moom mooy source am ci li mu wax bu demoon gëstu ba xam kii kan la ki ko wax ba pare ndax daan na wax lu am su boobaa du tàbbi ci erreur bii nii wala mu dem ba settantal ba xam ne lii kat lu leer la du lii yëpp du ko ci fekk mhm. gis nga kilifa mhm. dañ ne day jéggalu mhm. wala ci naka la war a jéggaloo daf ci am solo buñ ne taalibe da sax warta gàggantoo ci mbedd kilifa baa tax te imaam kilifa la te am na ay taalibe lii nag dafa gàggantikoo ci mbedd ba jéggaloo ci mbedd moo xamante ne xaaruñu ko fa woon lañ ko doon xaaree mooy que sax mu toog ci ab pencam ne li ma wax kat waruma ko woon wax te maa ngi cay tuub waaye dem ba prison nag ci wax joo xamante ne waroon nga cee tey def ndànk nga dañ ko koy nangul parce que jéggalu na nag waaye ci anam ba mu jéggaloo mhm. moom la ñuy critiquer te moom la ñu rafetluwul mhm. en tant que imam boo xamante ne da war a servir un modèle ndax trop taaxul mhm. le fait que mu mu jéggalu dem ba nga xam ne mooy arrestation am na mu jéggalu lan moo tax ba mu defee maanaam discours am boobu kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko euh, ba mu toogaatee ba wax ji bëri tuuti laa laataa ñu ko arrêté ndax euh, lu tax génnul euh, def vidéo daal di jéggalu ca ca moment boobu mu toog ba heure bii di doogu jéggalu xaaru ko woon parce que jàppoon na ne xëy na li daan xew mooy xew ba tey mën na koo wax maanaam wax li la neex ba pare te dara du la ci fekk de loolu xëy na jàppoon na mën na koo wax mhm. dem fanaani këram dem continuer ba pare tëdd si mhm. mhm. wax ni wax a ay preuve te moom moo tax ma ne la xëy na dafa jàpp ne loolu moo continuer ba tey ji beneen ba déglu naa ko ci ay vidéo mu naan képp ku koy jël ci wàllum yoon baraa ngaa agsi sax da dee xëy na moom mm-hmm. loolu jàppoon na ko mayoon na ko ci confiance yoo xamante ne mm-hmm. tey jii nii yàlla woon na ko moom mooy buur te moom mooy bumi mm-hmm. dañuy yaakaar loo xamante ne yàlla moo la ko may waaye da dem ba fàtte ni lii dafa am fi mu jógee ba tax la nga bew di yaakaar ni kenn mënalu la dara erreur yooyu dañ war a moytu nag di tabbi ci yenn yi en tant kilifa te loolu waroon na mën a ñàkk ndeyasu loolu waroon na mën a ñàkk googu la ñuy yëkkatiku na ko daal di ko teg ci ndodd Ousmane Sonko ñu gis ni euh, ki nga xam ne rek moom la ko teg euh, moom Ousmane Sonko en tant que waxuma en tant que euh, premier ministre mais Ousmane Sonko en tant que chef de ni ñëpp ñoo ngi ciy wax waaye mu génnaat def li nga xamante ni mooy jéggalu waaye te gisuñu ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ni jéggal na ko wala jéggalu ko ndax jéggal boobu noonu Ousmane Sonko la ko war a wax wala fële ca kanamu justice fa nga xamante ni fa la mbaxane doonee benn fa la war a mën a taxawu jéggalu foofu noonu ñi nga xamante ni ñoo xam nga li ma dama wax ñaari affaire yoo xam ne bokkul. Mm-hmm. droit la ñuy wax. Mm-hmm. Ousmane Sonko porté ko plainte. Mm-hmm. procureur moo autosaisi wu jàpp ko. parce que bu ko jàppul mën nañ ko gaañ. wala mën ko indi problème. yaa ngi dégg. te man tax loolu laa ni buñ ko jàppul ñu xam ni xale ni mel ci Ousmane Sonko. waxum premier ministre bi de. nit wax ko lu mel nii. Mhm. nit mën naa génn def waa euh, imaam bi loo xam ne waru ko def. 72 heures mënoon na ci am. waaw mën na ci am. <laughs> Mhm. yaa ma dégg. Mhm. nu 72 heures bi rek 72 heures bi dafa ndaw. mën na am yenn ay violence yoo xam ni physique la. mën na ci am procureur rôle am mooy fexe ba loolu du am. ci loolu la ko jàppee. Mhm. su koy bàyyi moo koy jaam bàyyi yoonu Ousmane Sonko nekku ci. kon mhm. jéggalu bi nga xam ne def na ko jéggalu am na droit jéggalu. Mhm. wax na lu ëpp jéggalu na nañ nekk la ñenn ci gendarme yu baax yi yenn ci juge yu baax yi yenn ci procureur yu baax yi fi nekk dañu yaakaar ni Macky Sall lañ fi nekkal te nekkuluñu fi droit lañ fi nekkal. ak état bi. kon tey boo yaakaar ni la la la la Moussa Mak ki la kii ku mel ni Soussane Camara. toog ni fii dañoo war a rey Ousmane Sonko. kenn jàpp ko bu xaalate mais nag man gis naa ci moom nag bi ñu daanoo ba nëgën yi. dafa dafa serein xanaa enseignant dafut. moo tax mu noppi la mu doon wax lépp waxatu ko. Ah, génn mu ngi génn. dama koy autoriser dama koy encourager muy génn aussi. parce que nit loo nekk da nga cay gëm. da war a défendre Macky Sall. Mhm. man dama war a détruire Macky Sall moom parce que Macky Sall faisait son affaire. man mhm. Macky Sall euh, euh, li mal. Mhm. Mhm. kon am naa droit ni Macky il ma faisait li mal mais Macky Sall faisait son kon li bu dee gor rek war na continuer défendre Macky Sall. ma sama foofu la gëm. parce que gëm naa ne ñi doon défendre Macky Sall war a continuer di ko défendre. mais suñ ko bàyyi rek. traître am na. jaam am na te wut ko am. dañu continuer di ko défendre. diñ ma ne koy défendre tam nañ ko défendre ci dëgg. dëgg gi mooy bu ñu bu Mm-hmm. nañ teg ne Anta Macky moo fi gën day daal moo fi gën bàyyi comme nañ ko doon waxee mm-hmm. faawaa nu mu tudd am ni fanc fanc fa wacaacaa mm-hmm. boobu ñu ko doon waxal nañ ko nit ko waxal d'accord naa ci mais du ma nangu nag ñu naan Macky Sall moo fi gën def na fi li mu fi def pare di saaga ñeneen ñi ki xas foofu moom kenn ko nangul tey moom li mu def man ànd naa ci ak moom mais daal bëggoon naa débat bi parce que tey démb ak tey ak ginnaaw démb am nañu Mm-hmm. même une promotion sociale ñu koy commencé am. di tudd seen tur sax. Mm-hmm. rafetul ci gor ak ci fulla fayda. ba mm-hmm. nit bu defee lu baax on efface. on continue. je crois que c'est la meilleure façon. ndax Moussa Fall foofu tamit euh, ndax nekkul ne tamit bu fekkente ne nit ki day ñëw. wax lu ko neex ñu jàpp ko mu jéggalu. bu fekkee noonu lañ nar a doxee tamit ndax loolu dina doon lu jur jàmm. voilà non cest à xam nga boo jéggaloo rek. bu fekkee nañ la dóor fukk juróom lañ lay ak c'est la culpabilité état d'esprit la. Mhm. moo il sait très bien qu'il est coupable. Mhm. tam ci droit ak ci mhm. musulman lu ñu may. mais boo tooñee nit ki mu ne maal tooñ gën a maal tooñ baal ma. man ko baal ko bu la neexee nga baal ko. bu la neexee baal ko mais droit nag mën na continuer poursuite bi. parce que li mu doon bañ booy dem. problème am fi man mën nañ ko gaañ. mën na am yeneen problème droit ne kër comme droit ko war a protéger état ko war a protéger. état mhm. état moo jël responsabilité. Mhm. jàpp ko pour mhm. bañ ma am problème. loolu la mais am na droit baalu moom. te man toujours pour ñu baal ko. dootu ko defati waaye du imaam bu may jiite man ndax wóolatuma ko. te xam naa gëw ma yàlla dina ma jiite. yàlla nag ma c'est lui qui vit sa vie communique sa mort xaw ma sax su ma dee moo naa defal leen sàppo yi mhm. Mhm. ndax man su ma dee nekkatuma fi mhm. mais gëm naa ni moom du koo koo xam ne kii war naa nekk jàkk xam ne moom mii la mooy jiite je préfère quitter jàkka bi ak moom mooy jiite am na solo imaam dafa war am image image imaam lan la ci ñu ñëpp yàlla tax wax na ko ni xool leen lu mu def ngeen def ko ci julli gi ci loolu lay desandi Pape Mahawa li nga def nga ah. xool leen euh, ci li mu def ci julli ngeen euh, daal di ko roy ndax moom en tant que imam en tant que porteur de voix mm-hmm. euh, nit ñi tamit bëggoon ko doon ko bàyyi xel parce que